ma nuyu bu baax di la jottali nuyoom bu baax a baax ak nuyu njabootu Cheikh fuuti Fouti yëpp Mbacke di macha allah. ñu ngi fi ñëw nag ànd ak sa njaboot macha allah soxna yi ñu àndal délégation bi bu ya bu ma yàggoon tuuti sax kaaray ñëw macha allah ndax cofeel bi ñu am ci yow macha allah Mbacke ñu ànd ak ki nga xam ne mooy soxna madame Sarr Aïda Diop. mu jiite mouvement yeesal taxawaay golf sud ànd ak Babacar Ngom mii jëwriñ moom moo jiite mouvement force ouvrière di la jottali waale nuyoo sëñ Mansour si Jamil moom tamit njabootam a ngi fi ñu ngi fii ak tamit madame Mbaye mii toog di sa doom di sa jarbaat ak ñoom Lamine Gueye ak sa jëwriñ ju mag ji nga xam ne waaw Mandiaye Ndiaye muy ku baax walaay macha allah ànd ak délégation bu mag bi ñëw ziar si la di sàkku sa ñaan ndaxte comme jamono ji li ñëpp a ngi laaj mais ñun laaju jàmm moo ñu indi am sa njaboot bu am sa cofeel bu baax a baax fële ci golfe man leen incha allah soobee yàlla dinañu dagg suñu activité jóge Dakar pour si la nuyu la sàkku sa ñaan tamit bu ñu demee ci élection yi ba le 23 nit ñi dem ci jàmm. incha allah voté ci jàmm delluwaat ci seen activité ci jàmm ndaxte jàmm rek a fi xej ku ne nag sañ na xëccoo ne bëgg naa mais yàlla ak ay coobareem ak bëgg-bëggam décidé na ba pare kat mooy toog bu ko defee tamit ñu nangu ko ñu nangu ko ñu nangul ko ko tamit ndaxte moom moom mooy borom mbir yëpp incha allahu rabbi li ñuy ñaan te de sàkku ko ci yow tamit nga ñaanal Sénégal yëpp ba nga xam ne incha allah bu bés baa jaamu am ci réew mi bu soobee yàlla ñu fekkee ko te tal ko te lu ñu bëgg ci réew mi tamit sopp ko sa njaboot bokk si yàlla na ko yàlla def may la gudd fan ak wér ak wér la nga yàgg gunge say taalibe ñu yàgg lay jëriñ ndaxte njëriñ boobu gis nañ ko ci réew mi yëpp incha allah waxuma golf fi ñu dëkk mais ci réew mi yëpp macha allahu rabbi ñu nekk exemple boo xam ne ñii ñëpp ràññee nañ leen du ma ko nëbb sa njaboot bi ma àndul bég naa ci ñoom torop commencé mbar ma njaay njaay mii yàlla moo ma booleeg moom mais ba mu ma booleeg moom ba ba léegi rëccuwuma ko ci yar ci teggin ci xam-xam mais surtout li muy jàppale xale yi ci biir Golf Sud kooku ñun nii ñëpp macha allah seede nañ ko jàppale bi am na njëriñ lool lool lool lool nekkatul nag njabootu politique mais sama njabootu bopp la voilà sama njabootu bopp la. ndaxte xoolatuñu élection fu mu ne nii ñoom ñëpp tey sama benn deret la macha allah loolu lañu fi indi woon euh, pëndal fi suñu tànk mi surtout ñaanal la gudd fan ak wérle nga yàgg gunge jaboot gi nga xam ne tey ñoom sopp nañ la bëgg nañ la te gis nañ seen njëriñ ci biir yàlla mi am tawféex yàlla mi mën yàlla la yàlla may gudd fan wër ak wérle nga nga yàgg jëriñ Sénégal yëpp jëriñ la mu woon entier macha allah jërëjëf jëri jëf waaw jërëjëf sëñ bi nee na bëgg bu baax sa teewaay. nee na kër Thierno Mountaga dem na fa ba tey. kër Serigne fal googu ci Rédis. am na jamono ma dafa bind kaamil. bind kaamil. daan góor gi góor gu gu yiw la daana jógee noonu gal tàppe di jaar di dis dem ci. bu nekk rek bu bu naaj boole di jëm jëm onze heures jaar nekk rek xooyee naaj boole di jëm onze heures jaar noonu dem ci Thierno Mountaga. nee na ñu ne ko day fii day doomi suñu fàllam ji bind kaamil benn bis nag mu jàdd fa. daal di xool mbind mi nag bëgg lool ne ko yow day faw mu yóbbu la ci cerno yow yàgg sa mbind mi faw ngeen ànd ma yóbbu leen ci cerno ndax li dal xam naa ne cerno lii dana ko neex lool boobu laa fa tàmbali dem dafa dem lu bari Cerno bëgg ma lool su ma ñëwee mu sargal ma bu baax. la defe naa bi sëñ Mountakha bi sëñ Seydou Nourou demee mu ngi fi woon te muy ko yaram ni Omar Omar Tall Cheikh Omar naa fa mbind mi sax ba maa ngi fekk néeg fees dell saal ba nee ma fekk saal bi fees dell xool bind xool ba ñuy xool bind mi di ko yéem ba mu yàgg mu ne ah, àll day jërut nawe matum mu ne ma yow lii boo ko defee war nga ko def ma yow de lii boo ko defee war nga koo def fekk Cerno Omar mu mu ngi tëral mi ngi sonu woon mu dal di jóg toog nag. mu dal jóg toog nag. daal <laughs> wax ci pulaar ne ko déet bul wax loolu. daal di wax des na ko nawee matt mu bari. ndax am na moroomi àll bu am matt moo tax àll bu bëree matt nag ñu nawee ko matt. loolu foofu yëpp jaar naa fa. na jamono bu ñu fekkante ci mu dëkk ay relaawo déedéet ay relaawo ci mbaan wala ci lañ si ak kenn amee bi ñuy def nee na daje nañ foofu ci celoñ nee na siyaar Ahmad Baba Tall dem naa ci ñetti yoon dem naa ci siyaar ba siyaara ñetti yoon nee yàgg naa jox soog yéen bu baax kon nag sa ñëw bi moom dafa rëy ci ñun kàddu yi nga wax rek ku ko dégg xam ne. kàddu ko dégg xam ne. ku war a téye mbooloo. ku war a téye mbooloo sa wàll. ci wàllu diine ji. boo ci demee nag dugal ci politique. boo ci demee nag dugal ci politique. day gën a baax rek. ndax politique lu mën a yàqal la. lu mën a yàqal la. fekk lu nit bëgg la mu yàq mu yaatalal ko. ko. yàqalil ko ko ba mel na na mu bëggoon. mel na mu looloo tax ku mel ni yow. bu doxee lu mel nii. bu doxee ñun ñëpp suñu xol daf ciy sedd. xol daf ciy sedd. xam na yàqale lu baax rek nga ci jublu yàlla na yàlla dollee jàppale te am nañ ci yaakaar itam nag yàlla ku ko yàqaleel bëgg-bëggam mu sawar ci say mbir ba noppi nag jàppale la kon nag li nga bëgg yàlla na ko yàlla defal ni nga ko bëggee rek nga amee ko noonu tam nii nu nu muy toogee ci suuf bank tànk yi. bu ne yu xeet wax rek sa xol sedd. da defe ne sax néewu fa. day jékki rek. day jékki-jékki maanaa ci Mansour. wax ko ci ñëpp des ci ñoom. sama dafa ma daan neex sama xol dafa daan sedd lool. yeeg ak bu defee ay tàntam wala mu toog sax ci waxtaan wi politik saa yi bu toogee rek toogaayam yooyu la may jox. bu may xool toogaay yooyu rek laay gis ci moom. mu ngi koy ñaanal mooy mu yàgg fi lool bu baax. jërëjëf sëñ bi neen yàlla na yàlla doole jàppal faj say aajo sàmm la bi fi nga bëgg a yegg nga yegg